Thank you. ñëwaat na ci diggante surprise ak Siteu 2 surprise topp na ko Siteu reculé Siteu da koo bëgg a jël Siteu da koo bëgg a jël Siteu ko surprise jafe na ak moom ci kaw mbot na ko mbot na ko mbot na ko Siteu 2 mbot na ko oh xale dañoo ñëw tegal na Lagos nuyu naa gaynde fay naa la. yaa ngi am jàmm. sant yàlla alhamdulilah. gëj gars yi gëj nañ laa gis foo ne. waaw ñoo ngi sant bu baax ñoo ngi si jàmm bu baax waaw. yaa ngi ci entraînement yi. ñoo ngi sant bu baax alhamdulilah. ñu laa gis gis la tey nga andi sa rak noo ko yawee. waaw di di sant yàlla bu baax rek. di ko ñaanal yàlla may ko ndam lu gaaw si barke xam Muhammad. xale bi muy dajal xale bu dangereux mën a bëre waa géej waay yaakaar ko est-ce que yab ngeen ko Pape Ndoye ak fukki de jeunesse mu ñëw waa xeex que yab ngeen ko moo xam ne ki muy dajal ndaanaan la. waaw ñoom ñaan ñëpp ay ndaanaan lañ ay ñaari xale lañ ñuy bëre rek mais ñoo ngi ñaan yàlla mu may ñu ndam ci barke Seydina Mouhamed. yow tamit ñu gëj laa gis foo jëm foo jëm la gos. ñoo ngi baax yow abar waaw. mbokk yi Jackson a ngoog yi Jackson tey daa mobilisé. xoolal ni muy def supporters yi Jackson daa am confiance Jackson a ngoog ak ay supporters am làmb ji mbokk yi tey dafa neex Jackson a ngoog Jackson tey daa yëngal làmb ji ay Jackson làmb <laughs> ji neex na Jackson Jackson a ngi yëngale saat bi Jackson a ngi yëngal làmb ji ba confiance bopp du ko dal Jackson il est confiant Jackson il fay naa la. yaa ngi am jàmm. waaw ma sant yàlla baax. ñu la gis tey lu la lu andi lu woon sa tànk ci làmb ji. waaw xam nga ñu moom doomu làmb lañu bu làmb jotee dañuy seetaan làmb mun a am dañuy seetaan si. Hmm. ndax ñun si làmb la ñuy si làmb la ñuy géntee. comme daal làmb jotee dañuy seetaan dañuy seetaan si quoi loolu dara la si gisee te laaj ñu la Ama Baldé amateurs yi ak ak téléspectateurs yi dañuy sonal ñu gis Ama ba topp Modou Lo boobu ba léegi Modou Lo taxaw na pare naa pour ngeen amoon benn kese bu leen fayoon ngeen dem ci biir ñu yokkal leen lu tax lu leen teye jël làmb ji boobu ak léegi. làmb ji làmb ji ñor na waane ñor ñor ñor tapé res. waaw est que xam ne yéen a tëj làmb ji. tëj ñu ko de. non làmb wax ma yéen ak Modou Lo de làmb fi mu toll nii. waaw yéen a ko tëj. combat Modou Lo Ama bu taxawoon. mbër yëpp jël combat. promoteur promoteur ñoom lu xaalis. Ah. promoteur amee xaalis dinañ tëgg làmb ji. Ama Baldé pare na fi mu toll nii. donc promoteur bi amee xaalis. Ah. làmb ja taxaw hélas nuyu naa la. waaw fay naa leen billaahi. yaa ngi ci jàmm. kontaan naa waaw waaj la 24. waaw waaw ñu ngi koy waaj bu baax yaa ma gën xam. Mouha nee na nuyu na la. waaw Mouha fay naa ko di ko bégee di bégee ñëpp. waa di bégee sénégalais yëpp waaw kontaan naa. la ma te tey sa teewaay ci làmb ji. waaw sama teewaay muy Baba jaw ñu dëkk muy sama xarit sama mag. Euh, lépp lu ma xewle rek da ciy teew moo tax tey bu amee bësam bi man damay ñëw teew quoi damay bàyyi lépp teew ku ne xam na répétition yi métti na mais noo def rek da ngay bàyyi lépp rek ñëw teewal ko bësam waaw parce que nit ki amul lu dul bësam loolu képp la waaw. nooy waajee le 24. pare naa waaw saa ci biir. pare naa wasaare ngi ci biir sama copain ay dara ñëpp a ngi biir noonu la demee waa wasaare tamit maa ngi leen di béggee parce que macha allah même bu fekkee deux jours la sax ñëw nañ jël El Hadj Keita pour ñu gis ko pour ñu xam ko kon loolu dama leen ciy remercier quoi kontaan naa ci yéen yàlla na seen jàmm yàgg béggee kontaan naa ci yow jaajëfati yaa ngoog 14 décembre Pape Jackson Pape Ndoye bu Fass a ngoog mbokk yi Lagos andi ko Gris Junior andi ko Jackson ngoog ñoo waa géej waaye ëmb ko ñoom Pape Thiam ci ginnaaw ñëpp xale yaa ngoog ndaw laa mujj neex wax ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ Pape Ndoye bu Faas Jackson Junior mbokk yi teel a 14 décembre stade Iba Mar Diop 19h30 Habib baa ngi waale sifflé Habib Pape Ndoye ñoom ñaar ñëpp ngemb bu xonq lañ ngemboo waa Jackson ngemb bu bees la ngemboo avertissement Habib bi joxe na avertissement Pape Ndoye dina ko doon xëpp gàllal Jackson Junior Jackson moo ngeem moo ngeemul bees teg ci suma sum xonk bi Habib bi sifflé na Pape Ndoye dox na ci kawam Jackson reculé na Jackson Jackson door na ko ku Jackson door na ko Pape Ndoye reculé ah laabu ju neex laabu ju neex Pape Ndoye ngi dox dem ci kawam Pape Ndoye ngi dox dem ci kaw Jackson Junior Jackson reculé na <laughs> Pape Ndoye nee na ko tey du ma tegli benn tànk Pape Ndoye newoon na ko Jackson newoon na ko soo taxawee dëggal sa bopp làmb ji du yàgg Pape Ndoye Pape Ndoye doon na Jackson ñoo xeex ñoo ngi xeex laa ilaaha illallaah làmb ji neex bi wute nag làmb ji fi amoon bay Jackson daw na jël ko Pape Ndoye pekil oh Jackson dugub bi baaxul Jackson Jackson si ñoo dugub bi baaxul ah xale yi dañoo ñemente xale yi dañoo ñemente Jackson si ñoo Pape Ndoye ñoo xeex ñoo xeex ñoo xeex. ragal naa kaw Pape Ndoye Pape Ndoye Pape Ndoye Pape Ndoye Jackson door na Pape Ndoye Pape Ndoye Jackson door na Pape Ndoye Pape Ndoye génn kenn yaakaaroon woon Jackson Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye laay sama xol sedd na <laughs> Malcom Malcom Malcom dafa tiit Malcom Jackson abi sifle na Pape Ndoye Jackson à droite Jackson Jackson ne woon na ko soo taxawee dëgg sa bopp duñ fi yàgg. <laughs> Eh, Pape Ndoye Pape Ndoye dafa ndànk Pape Ndoye taxaw na lam foogoon ci Jackson du loolu la mu foogoon ci Jackson du loolu Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye à gauche Jackson à droite Pape Ndoye Jackson mbokk yi ñu fàttali leen ko ñoo ngi stade Iba Mar Diop tey le 14 décembre Pape Jackson Pape Ndoye Jackson Jackson ñoo ngi doo ñoo ngi xeex kawo laay laay la laa xale doo ñamante Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye Jackson kaw na doo na ko mu daanu Jackson doo na ko ba Jackson doo na Pape Ndoye mu daanu Jackson Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye Jackson xale bu Guédiawaye bi jar naa bàyyi xel Jackson a ngi noonu mbokk yi Jackson a ngi noonu Jackson doo na Pape Ndoye mu daanu daf may fàttali Modou Lo Eumeu Sène daf may fàttali Modou Lo Eumeu Sène Jackson a ngi noonu Jackson a ngi noonu mbokk yi Jackson a ngi noonu mbokk yi Jackson a ngi noonu Jackson Pape Ndoye Jackson a ngi noonu mbokk yi Jackson a ngi noonu Jackson Pape Ndoye Jackson Pape Ndoye jël ko may leen ko mu nooyi may leen ko mu nooyi may leen ko mu nooyi lii rafetul lii rafetul bàyyi leen ko mu nooy lii rafetul Jackson Pape Ndoye Pape Ndoye am na lu ko bett Pape am na lu ko mbokk yi Pape Ndoye ngoog Pape Ndoye ngoog ñu ko mu ànd ak ay mbokkam di ñibbi Pape Ndoye ngoog Pape Ndoye ngoog Pape Ndoye ngoog Pape Ndoye Jackson oh, laa ma gi laa ma gi nii mooy bàyyi neroom waaw moo yoon gaan Pape naa la. waaw fay naa la grand bi. yaa ngi bu wér. bu waaw lii gars yëpp da ko doon xaar Pape Ndoye. Uh-huh. ñëw xeex ak Jackson mais Jackson abi sifflé. Uh-huh. Jackson teggi lu waral loolu. kii champion la kii bu ñu ko ñaanalee rek wóor na Serigne Bamba ñu ngi waaye moom da ciy bokk booy bi daa teg ay coono yu métti moo tax yàlla lii rek la ko mun a dama ko wax na ko Pape Ndoye day ñëw mun ma bu ñëwee dootu ko defati naa ko daan jël bu nit mus a daan te loolu la appliqué barke alxuraani karim mooy loolu amuñu fayam. kontaan nañ ci waaw ñoo for yow. nuyu naa la Papa Leye. yéen noo leen tudd du wasaare. ah wasaare. waaw wasaare. miin sama gars mbaa demuñu Gambie. non dem jotu ne woon naa leen prix tipp la. dégg naa nga koy lu tax nga Baye Mañoon daa war a jox cër xoyantaan te ni muy xeexee day dajale ay tànkam kor kott ci loos bi di pompé. bu buñ ko plaqué mu tëdd bu deful ndànk jox xoyantaan cër ndax xoyantaan mi nekk kam bi boo xefee xoyantaan daan ko war a def mooy respecté xoyantaan daan ko indi roi bi Sénégal wasaana wala wasaaw. ay ca bisimilah ñu ñëw ci làmb ji tey kenn foogeel woon lii ñëpp dañoo joxoon favori bi xeex bi jox ko Pape Ndoye Jackson ñëw dëggal boppam xeex ak moom duma ko daan ko. adversaire fii boo gis Sénégal booy bëreeg sa moromu ndaw la da koy jox cër. respecté ko ragal ko aspiré Jackson mu ñëw mais Pape ndoy dafa bëggoon a humilier te boo xoolee ñaari état physique yi bokkuñu. ku gën a liggéey. état wu Jackson moo gën a ñar xomm état wu Pape Ndoye Pape Ndoye bi mu summi ko boo xoolee gàmbaasu biir yi mi ngi lang te xale la poids mel nii war a ko woon a jël ba pare mu bëgg a indi xeex. moom moo déclenché xeex bi parce que li seen Moustapha Gueye daan def loolu la bëggoon def tey Zata. mais damaa jëli Moustapha Gueye mu ne ñoom téyewuñu ko ci dara dañ na ko mu xool lu ko neex mu bëree loolu. da doon bëgg a attaqué. koñe gañe mbër da koy respecté moom daa attaqué ñu koñe ko gañe ko tey bu Macky Sall doon wër pétrole bi fii senegal moo ko koy wan wasaana wala wasaaw. wasaana <laughs> kontaan na baax a baax di sant maire Nogaye Wade di sant sama sëriñ sëriñ Moustapha Sy yàlla yàlla yokk leeram bàyyi ko bu yàgg yàgg di sant ñëpp lamb yi xam nga ñun mënuñu dara ay tout ak ñun xam xamuñu dara tamit yàlla moo ñu rek ma as fi ñu as nii. mais ni nga bëri doole. PAM doole mënu ma ko ëpp doole daaw ma ko bëre yàlla moo ma dimbale faral ma daan ma te woon ko yorul tuuti ma naw la man nga ñaan ëllëg tamit ba amee combat yàlla yàlla may ndam pare combat bu baax ak samay gain lool trois mois ñu nekk di liggéey liggéey ñu ay jaaxan ku mel ne Pape Thiam su ma longoo la yàgg si tool may may contact ma naan xam ñoom Black ñoom reenu guy xam nga ñoom Elton waa Guèye Mbooloo yëpp sama président Pape Fall père Mbaye père Dora Kosa Pape Pape Omar bëggee ñun ñëpp ñoom am ñoom Baba Laaj Diop président Laaj Diop jàpp nañu bu baax a baax moo doon tëggee baax a ñëpp xam nga. lu tax arbitre bi sifflé rek nga pétard dal kaw kawam. waaw ñun ñun ragal nekkul si ñun boo ñu gisee wax ñu français mais amul lu ñu tàpp si ñun dara ragal nekkul si ñun ñu ma waxoon dem laa wax man dem dëj moom gën a dem génne. ak ah, wóor waaw dem dëj a dem génne kon amul may loolu. waaw sañ-sañ ak gëm-gëm ak mën-mën ak liggéey ak jaamu yàlla ak ndimbalu yàlla. ñu bari ñu bari joxoon Pape Ndoye favori man bëgguloo mbër ñu woon noonu. man favori du gan si man saa bu ma bëree sama adversaire ñu jox favori yàlla na yàlla naa gën di am loolu noonu waaw chaque jour may wax rek man managuma dara lépp ci ndimbalu yàlla ak sama sañ-sañ ak sama gëm-gëm man lu nit di maye lu nit di am lu dal boobam man dama koy dama koy lijjante lu yàlla maye loolu mbiru yàlla waaw. foo jëm yéen xam ngeen ko. mais comme fan. laa ma xam nañ ko. mais gars yi dañ ne Gris 2 te Gris ma loolu. taxaw Jackson maama la. Sow déggoo ko de. Jackson enfin dugg na pour ah? man tout ba léegi maa ngi laa ba léegi. pare naa pour ñëpp. boo paree boo ne wax am bu leen déggoo jeex na. ku ñëw seet si am bu ñu jeex na di ñaar sama doom ndey bu baax Pape Thiam mbër Géewaay barke Alxuraan bam tam yàlla am combat yàlla may ko si ndam incha allah Pape Ndoye am na doole am na fit am na sañ-sañ nee naa ndimbalu yàlla moom moo may tey non lamb la